balaa ñuy réer <laughs> n'est-ce pas <laughs> te xar bi xar gu mat tabaski xar bu mat tabaski la ndaxte mhm. dëkkuwaay la ñuy bëgg a waxtaanee mhm. ak euh, Dieynaba euh, Seydou Tall euh, mhm. bërki démb bi nga xam ne ni premier ministre mu ngi def déclaration de politique générale ci assemblée nationale waxtaane na dëkkuwaay ak yenn ci ay mbir yoo xamante ni peut-être sama classe gi bu yooyu de am duñ ci concentré wu mais génn na yu am solo yoo xam ne mën nañu jëriñ ñun ñi nga xam ne amaguñu kër yu ñu moomal suñu bopp justement jekk ji dafa ne 2018 dañ koy jagleel mbirum social te sànq wax naa ko nee naa social kenn mënu ko wax te doo wax mbirum dëkkuwaay ndaxte mm-hmm. yaakaar naa ni ñun ñëpp ci lool euh, la ñuy rek euh, daal di dox euh, di kër kër yi pour bëgg am kër mais laataa ñu ñëw si sujet bi juste Pape Cheikh mm. am juste sa xalaat ci lan mooy sa gis-gis ci dëkkuwaay yow nan nga ko gisee dëkkuwaay ci wàllum social. habitat social xanaa ñu jox ko ñu ko ñu ko yeeyoo. Mm. ah il paraît que souvent duñ ko jox ñi nga xamante ni. Mm-hmm. ñoom a dox. ndax dëgg la ou parce que ñaare euh, euh, damay dégg ñu naan bu fekkee euh, jege nga gouvernement wala lu ni mel. buñ dee mhm. joxe habitat habitat sociaux yi. Mhm. dañu koy jox joxe seen biir il paraît. ah dañ en fait jaay bi léegi moom moo xaw a cher. voilà ci grand place duñu ne duñu ne lépp duñu waaw duñu ne lépp lépp négatif na mais li nga ci wax kon am na ndaxte bu ñu tëralee ay yenn programme yu ci mel ni yenn programme habitat jëmee ko ci wàllum social généralement. ñi gën a am doole ñoom ñoo koy jot euh, parce que euh, ñu ngi ko doon wax benn jour jot na loolu euh, mu daal di fay jóge mais particularité sujet bu ñu indi tey moom mooy ci déclaration politique général bu premier ministre dafa ne lu jëm ci wàllum habitat social nañ ko fas yéene daal di ñoŋal loolu nekk ci biir PSE ndaxte bokk na ci cinq piliers PSE parce que ñoom la ñu bëgg mooy at bu nekk daal di produire lu toll ci cinq mille logements ña nga ca nekkuñu ca waaye ñun la ñuy gis mooy liggéey bi des na mais ñu ngi njort ne danañ ci daal di liggéey am na euh, benn loi bu ñu génne nekk loi d'orientation jëmee ko ci wàll wàllum euh, dëkkuwaay ak wàllum tabax ci biir euh, képp kuy promoteur privé te attan ko dañu lay dimbali nga mën a accéder ci suuf ci na mu gën a yombee maanaam par exemple mètre carré bu doon jar par exemple 6000 ñu mën la ko joxe par exemple 300 francs mm. pour nga nga mën a wàññi bu baax a baax sa njëgu bi ngay jaayee kër gi mm. waaye lu jëmi tamit ci matériaux yi nga xamante ni ñu ngi koy rek daal di utiliser pour tabax mi loolu aussi ñu détaxé ko bi ci euh, biti réew la ñuy jóge bu ñu dugg fii ci douane dañ ci daan teg taxe yu bari mais loolu dañ ko dindi pour permettre aussi euh, promoteur privé yi ñu mën a euh, daal di rek tabax tabaxin bu gën waaye aussi tabaxin bu nga xamante ni bu mucc ayib te bu yomb lay doon bu ñu ñëwee ci programme bi nga xamante ni gouvernement bi tëral ko avec la complicité donc de Vieux Diouf mu ñu wan ñu kon pôle yi nga xamante ni ñu ngi ko rekk daal di fas yéene jëmmal ci Sénégal bi yëpp boo leen xoolee bu baax toll nañ ci à peu une trentaine de pôles urbains. yu ah, ñuy tabax ah pôle rek immédiatement sama xel day dem ci Diamniadio. non justement euh, euh, kii bi ñuy def confusion bi ñuy def généralement mooy que DGPU du pôle urbain euh, de Diamniadio et du Lac Rose logé wul sax au niveau du ministère de l'habitat ah. parce que pôle urbain Diamniadio ak Lac Rose ñoom dañu ko yóbbu au niveau de la présidence de la République ça dépend directement du président Macky Sall. Hmm. donc yeneen pôle yi nga xamante ne ñu ngi koy rek daal di daal di daal di tabax. yu bu Daga pa euh, pap Cheikh bu yeen ak bu deni Biram Ndaw ak yeneen ak yeneen i pol yooyu euh, ministère de l'habitat euh, de l'urbanisme et de l'aménagement ñoom ñoo koy rek doon lijjanti pôle yi bari na nag parce que lu ci mel ni Daaru Muxti Daaru Muxti day rek daal di am pôle Kër Momar Sarr Kidira Bakel Saraya juste pour vous dire que ne que dañoo fas yéene kon daal di jël lu toll ci fanweeru pol daal di koy tas un peu partout au niveau du Sénégal te rek du ay dëkkuwaay yu yomb mais day nekk li nga xamante ni dafay daal di gunge ak ay ay infrastructure de base yu ci mel ni école hôpital euh, ak euh, yeneen yu ci rek euh, daal di dem kon nee ñu Déni Biram Ndaw ak ñoom Daga Xolpa ñu ngi koy rek daal di liggéey loolu la ñuy wax waaye ci jamono ji lu ñu mën a teg gët ne mi ngi génn moom mooy pôle urbain bu Diamniadio pôle urbain bu Diamniadio nag ci atum 2014 la ñu teg pose première pierre 2014 donc ba 2017 ci jamono ji ñi ngi ci liggéey bi mais dañoo ne fii ak 2035 la ñu fas yéene daal di produire lu jëm ci ay dëkkuwaay toll kon ci 40 000 logements 40 Euh, lu jëm ci wàllum logement sociaux yi moom la ñu bëgg tabax euh, ñoom waa pôle urbain Diamniadio et du Lac Rose parce que bu ñu fàtte aussi que nekk Lac Rose dafa bokk kon ci euh, programme logement sociaux yooyu le mais lu jëm sax ci nit yi nga xamante ni ñoom la fa bëgg loger toll nañu ci cent mille jàpp mille personnes yu nar a nekk ci pôle bi waaye pôle urbain Diamniadio ak bu Lac Rose dañu jàpp itamit ne du rek ay kër. mais dafa mel ni université ñi ngi fa ay na ay laboratoire yu fa nekk te euh, ci jamono ji am ñu ngi commencé di di dox euh, parce que Pape Cheikh barki démb ñu ngi doon inauguré benn hôtel bu nekk foofu ca Diamniadio loolu di wane ne que dëkk mi ngi commencé kon euh, di dox mais lu jëm ci wàllum logement yi ndaxte loolu moom moo ñu intéressé ci jamono ji nag 2660 logements moo pareegum ca pôle urbain bu Diamniadio mais kenn dëkk gu fa waaye jënd nañ ko dëkkaguñ fa waaye jënd nañ ko lu toll ci 2660 logements. Mhm. te euh, coût bi dafay nekk entre onze millions et 20 millions. xaw ma nag dañu seen gis-gis ndax jàpp ngeen ne entre 11 millions et 20 millions ñu jënd ci ab dëkkuwaay loolu bokk na ci habitat euh, social mais mhm. ñoom loolu lañu koy jaayee entre onze millions et 20 millions. Mhm. waxoon naa la sànq ne ne ci mars 2018 bu soobee yàlla ci la ñu commencé di am ay dëkkuwaay nit yi commencé di dëkk ci pôle urbain bu Diamniadio ndaxte lu jëm ci sphère ministérielle bi dañuy tàmbali kon euh, ministère yu bari dañoo fas yéene kon dem jam ñaajo kon ci mois de mars bi la ñu fas yéene kon euh, daal di tàmbali vie bi foofee ca jam ñaajo kon ci jamono ji foofu lañu ñu rek euh, daal di toll euh, ci mbirum dëkkuwaay 5000 logements yu ñu newoon dañ koy tabax at bu nekk yegg guñ ci te loolu bokk na ci gis-gis yu ñu rek tëraloon te ñu am yaakaar ne fi ak 2035 bu soobee yàlla la ñu namm amal pour kon logements sociaux yi dinañ ko rek daal di matal mhm. ak aussi pôle urbain yu ñuy tabax ci dëkk yi pour permettre également ne ñiy dëkk ci dëkk yi ñu mën a des lu jëm ci wàllum euh, exode exode rural voilà ñu mën mhm. ko wàññi bu baax a mhm. baax mhm. ci euh, suñu suñu dëkkuwaay yi voilà en tout cas am na solo euh, Dieynaba na Ba li nga indi jëm ci wàllu dëkkuwaay mais nañu ko jox daal ñi ko yeyoo ñi ko yelloo teraanga baax na mais xam fa nga koy tàbbal itam defe naa moo gën waaw loolu am na solo parce que na géej moom kenn du si dolli ndox déedéet déedéet da ngay fekk fu dara fu dara amul nga def fa dara suñu classe gaa ngi ni pàkk tëñu nañu commencé si ñun loolu tamit na am solo. clin d'œil la waaw waaw mer sa soxla wax dëgg yàlla. ah, ah du direct boo ko doon premier mai dina dina balaa le premier mai dina ko lijjanti kon. oui parce que dégg naa loolu dégg naa <laughs> lu mu wax dina ko def. yal na ko lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu euh, dëkkuwaay 10